baa ngi noonu diggante jeex ne nii mooy Forza numéro 2 école de Balla Gaye ak Ama bu Yaraax Forza moom fi na suñu ah, bu Yaraax ak Dóor de <laughs> Ama bu Yaraax ak Forza Forza Dóor na gauche moo ñu woon ginnaaw mu ngi Dóor noonu jàppante na ñoom ñaar Ama bal ama ama ngi noonu mbokk yi ngi noonu mooy jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Feugeuleu mooy Forza bu numéro 2 boo ko jëlee Balla Gaye ñoom ñaari ngi noonu xar na ko Forza doo jëpp xar ama bañ Forza ak leen fàttali mbokk yi tey ñu ngi fi nga xam ne mooy arène nationale ala Fassane loolu jël tey sees ama bañ na yaa xelal la tey nag jamee kee jam production daay laa xelal la ama koy jéem a xar bañ na jàpp ni ngeen bëri arbitre tollal ñoom ñaar a ngi noonu. ama ama Forza la ilaha illallah Forza daan na ama laa ilaha illallah force a garnu ko force